billahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irahim wasalallaahu ala xayri xalqihi wa xayri xadimihi wa fadilihi wa samihi wa malaamihi wa baabihi wa seyxi wa sallim wa habliya al ilhaama walbaraha wa xassili lisaana wal yaraaha asalaamaaleykum mbàkke sab géewe lay nuyoo ku réere aw turam nag Babacar moo di aw turam mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen ndokkeel di leen ñaanal jàmm ak xaalis ñu ñëwaat ci seen sit bu mag bii di went 28 pro fas yéene indi ay laabire wala ay yeete tuuti rek ci wàllu koor ak yi nga xam ni moo ci aju ngir ñun ñëpp ñu mën bokk jariñu ci ndax koor dafa nekk lu am solo te it mel na ni ba léegi ni ñu ko war a jàppee des na ba léegi wala xamaguñ li ci war dëgg-dëgg wala lan mooñ ñu ciy xaar bu ko defee mbokk yi xam naa dañuy yeete lu néew néew rek lu mu néew néew sëriñ mu Ka waxoon na ni li may nelaw nelaw du teema yeete waaye li may gëlëm gëlëm du teema woote kon mel na ni kii yeete bu yeewu wutit mu am pas-pasu yeete rek am pas-pasu ñi muy waxal jariñu incha allah ndax koor dafa nekk lu am solo te mu mel ni ba léegi xamaguñu lan mooñ ciy xaar bari na ci ñun ñoo xam ni bu koor gi jub si dañuy sa wax ne dañuy tëj saison bi di gaaw di def seen seen yi ñu tudd ay baax baax ngir yi nga xam ne bu bu ñu waree duñ ko mën a def ñuy profité di ko def bala ñoo woor loolu mooy bu koor gi jàllee rek ñu tëjiwaat saison bi te xam nga loolu ëpp naa def ndax koor suñ borom dafa wax ni def cee jublu ngir ñu ragale ci yàlla léegi nag nit ki pour mu xam ndax li mu doon woor nangu na wala nanguwut mooy bu fekkee dafa tëj saison bi ci koor gi bu koor gi jàllee du ko tijji day woor tëj saison bi mooy bàyyi yu baaxut yi mu doon def bàyyi caaxaan yi léegi nag bàyyi caaxaan yi ci koor gi ñu wari rek nga delluwaat ci loolu mooy signifié ni li nga doon def nanguwut ndax koor mbokk yi stage la rek essence la booy def boo xam ni dafa am loo ciy jéem mooy yaa ngi ciy jéem téye saw làmmiñ yaa ngi ciy jéem di xool loo warul xool yaa ngi ciy jéem di déglu loo warul déglu ba ci ñi nga xam ne sax dañuy ñu baal ma di misig ak di def yu nuru ay fol yu bari dañ koy bàyyi di jéem góor góorlu ngir di bañ a day concentré nit ñi ki nga xam nag dafa bàyyi yu bari ngir bëgg a mucc musal bakkenam ndax comme koor dañ koy tënk seytaane dañ koy tënk ci koor gi dafay mel ne lu bari luy gàllankoor nit bakkan lay doon kon bakkan nag dafa mel nii fii ci senegal daf ci ëpp doole sax bu ñu ko seetee bu baax a baax bari na lu ñuy jiñ seytaane fekk bakkan moo koy def kon ñu bàyyi xel bu baax a baax ni koor stage la wala examen bu ñuy def examen nag yaakaar naa kenn defu ko pour rek def ko nga def examen ngir jàll ngir am diplôme sàngam moo xam bac ngay def wala BFM wala walla yooyu ngay def nag pour wut dara boo ko defee ba noppi war nga jéem a xam ndax mooy lan nga am ba xam ndax <laughs> da nga am vingt <laughs> wala dix sur nga am wala wala lan na ñoo xam nag waxuma la cinq pour vingt sax duñ ko am ay trois yu ñàkk fayda yooyu la ñuy am te yooyu topp téléphone yeeg caaxaan yi rek moo koy def xam nga woor lonk sab liñ rek say tigoo nobanteeg say yooyu noonu nekk ci connexion bi nga xam ne li nga daan def lépp bàyyiwoo ci dara waaye da nga bàyyi lekk ak naan rek loolu suñu borom nee na amu ci soxla kon nañu war a bàyyi xel bu baax a baax ni koor dafa metti te xëy suba ba ngoon lekkoo naanoo ni mu mettee am na ñu ko yàlla umpule ñoo xam ne bu dul koor du ñu xam xiif ak mar ni mettee ndax yàlla mënal na leen gan yàlla mane na leen gan am nañ lu ñuy xewloo bu ñu xiifee am nañ lu ñu lekk kooku boo taxawee ci moom di ko wax ni añuma walla dama bëgg lu ma reere wala kër ga dara néewu fa dafay yaakaar ni kii day caaxaan parce que xamul xiif bu ko defee nag bu wooree gis lekk gi mënul lekk mu xiif xam li ci mar bu waree tam bu déggee kuy wax loolu dina xam ni ah ndakati xiif ni la méttee bu gisee ñoo xam ne bu ñu añee du ñu reer wala yàlla nattu na leen ndax yooyu yëpp tam ay nattu la yu yàlla y tege rek nga xam ni jombul kenn xëy na dafa am ci ñenn ñoo xam ne rek ni ko suñu borom di defee day jël ñenn ñi teg ko ci kaw ñenn ñi adduna bi loolu mooy philosophie adduna bi ndax bu ñëpp amoon xaalis di nga bëgg ku la tabaxal kenn du nangoo doon mason pour tabaxal la ndax maçon dafa métti kenn du nangoo doon téyër pour ñawal la kenn du nangoo nekk ca marché ba di jaay légume parce que ñëpp am nañ xaalis kon xaalis sax dootul baax waaye ni mu wuutee daraja yi wuute mooy tax kenn ku nekk li mu soxla mu di ko wut ci moroomam bu ko defee nag yooyu mooy tax ki xiif te am xaalis bu fa jógee dina xam li ci xiif bakkan itam bari na lu muy baj baji fekk dafa xiiful rek waaye bu xiifee rek day naan xam nga bëccëgu koor moom boo duggee ci kër yi dañ naan cel coow li muy bari bari doo dégg coow li du bari xale yi cëpp cëppeeg jigéen ñeeg ñépp dañ naan dem nelaw rek la ñuy def bu boobaa nag yooyu dañ ci mën a profité yar sa bopp xam ni ragal yàlla gi ci suñ borom bëgg ci yow ak yar bi mu bëgg nga yar ko sa bakkan ngir li nga doon suñ borom doon tere te mënoo ko bàyyi nga di ko def ci koor gi moom doo ko def ki nga xam ne day tux sax bu wooree du tox léegi kooku war na ci jànge bàyyi tux ngir toog na bëccëgu la mu tuxut kon bu góor góorloo rek dina jéem a bàyyi wàññi ki nga xam ne itam da def leneen noonu rek lay deme leneen li mu doon def te xam ne baaxut bi mu waree ñu tënk ko ba defu ko bu mu wari rek dal di gaaw jëm ca loola waaye na jéem ne sama jikko sàngam ju baaxul jii daal koor gii ren buy dem du ko fi bàyyi dama koy bàyyi ci koor gi waaye bu koor gi jàllee damay continuer bàyyi mu ne ah man kat daaw mu julli waxtu ma koor gi jigéen ñi lu metti métti dinañ këpp këppal am na jigéen ñoo xam ne duñ julli mukk waaye <laughs> fajar la ñuy julli ak timis waaye bu ñu waree dañ góorgóorlu di julli kooku nag daf ci war a jàngee bu wooree itam mu continuer di julli am na ci ñoo xam ne duñ yeewu fajar xalaatuñ ko waaye bu ñu waree dinañ góorgóorlu ba waxtu fajar moom bala ñu tëdd dinañ julli fajar yooyu yëpp dafa nekk ay enseignement yoo xam ne dañ ko war a jàng xam ni koor gi dafa ñëw pour jàngal ñu ñu bañ ko jàppee itam luy xew ak xewi rek ndax kenn ku nekk am na ñoo xam ñoo xam ne fekkee woon nañ koor gi daaw te koor gi fekku leen fi kon bu kenn ku ne jàppee ni koor gi kat mooy sa mujj koor bu boobaa di nga xam niñ nga ciy taxawee boo jàppee ni koor gi mën naa am bu déwénee du ma fekkat mooy sama mujj koor bu boobaa di nga ci góorgóorlu yi nga war a def ci yu baax yëpp nga def ko ndax di jàpp ni di nga ko fekkewaat ak doo ko fekkewaat loolu mën na tax nga yaafus te koor promotion la lu neex a jàngale la ci jamono ji ndax da am benn assant bu ni boo jëndee tey 1000 trois 300 pour cent la dañ lay may yeneen trois 3000 yoo xam ni ñun ñoo la ko ci tegal te suñ borom daf ko waxoon bu yàgg waxoon ni boo defee benn bu baax daf la koy faye fukk wala sax lu ko ëpp boo defee benn bon nag benn lañ dafay fay tegal kon nag sàggan ba sa ay benn benn ëpp sa ay fukk-fukk loolu tam ëpp naa def bu ko defee nag koor nag moom day nekk promotion boo xam ne dañ koy ful dañ koy ful bu ko defee xam naa dinañ ñëw ci laytul xadar nga xam ni suñu borom dafa wax ne xayru mi alfi moo gën junniy weer loolu rek misaal la ci koor dafa gën ci weer yi comme moo ci gën nag lépp loo ci def ci lu gën rek dañ koy yokk ba nga xamee ni bu dul woon koor boo ko defee la mu doon doon boo ko defee ci koor gi dañ koy ful kon war nañ ci profité bu baax a baax te bañ a rek topp yi nga xam ne dafay jël suñu temps lu baree bari muy connexion ak yooyu nga xam ni li muy jël ci suñu temps chaque jour buñ ko seetee dafay nekk lu baree bari fi mu toll boo calculer chaque jour nga seetaan télé 4 heures de temps lu mu néew-néew. li ngay jël ci télé ak téléphone ci internet bi li nga ciy nekk dina mat 4 heures de temps loolu boo ko calculer journée bi day nekk 24 heures 24 heures boo jëlee 4 heures de temps moo fi des ñaar fukki waxtu léegi ñeenti waxtu yi jël nga ko léegi loolu boo ko calculer boo dundee juróom-ñetti fukki at dafay mel ni yow am nga fukki at wala fukki at ak juróom yoo xam ne da ko koo seetaan télé wala yoo xam ne moom nga connecté wu. kon loolu boo ko génnee ci sa ak dund fukki at yoo xam ne dafa dafa dafa dafa neen ci lu ci ñenn ñu ci bari ndax bari nañ ñoo xam ni connexion bi duñ ci jariñu xamaguñ ba tey nuñ koy jariñoo dañ ci nekk rek di fo boo defee nag yu mel noonu ak nga xool ko li nga nelaw am na ñoo xam ne moom journée bi lu mu néew néew dinañ nelaw douze heures de temps bu boobaa kon juróom-ñett fukki at yi ñeent fukki at yi da koo nelaw boo nelawee ñeent fukki at nag fukki at yi nges ak juróom nga seetaan ko télé xam nga yow li lay dese du bari loolu boo ci bëggee jaamu yàlla def ci liggéey ci def ci yi nga ci war a def da tardé da tardé lu baree bari kon nag yooyu yu mot a bàyyi xel la te dañ koy def te duñ ci rendre compte duñ bàyyi xel lim ñuy sànk ci temps maa ngi ko doon wax léegi Tigo ndobante xaw ma Tigo sama waay yooyu nga xam ne dañ koy takk rek jëmale ngoon te <laughs> lu ci bari da ngay gis koo xam ne daf koy def rek topp yomb gi du liggéey du bàyyi ki muy waxal mu liggéey mu continuer di wax bu dee ngoro moom ngoro ga day tas ndax ki nga xam ni doo ko bàyyi mu liggéey du def dara fu mu toll téléphone baa ngi ci nopp bi bu am xar mbeemee sax nga ne xar mi meem ku mu doon ku yëngutu nga ni ko kan la bu yàggee da koy soof da koy soof loolu mooy bi mu yombee rek déggante bi yombee rek la ngoro yu bari tas Sénégal moom woykat yëpp mbëggeel la ñuy woy waaye xam naa warañ ko seetaat ndax boo xam ne génn rek lay am waaye dugg du am loolu itam lu mat bàyyi xel la waaye yu ci bari dañ ci du rendre compte rek dañuy wax rek di dem te duñ bàyyi xel bu baax a baax li ñuy wax ndax ñi ngi koy jëfe wala déet yu ci bari nag bu ñu waxee wax ji day baax lool rafet waaye buñ jëfee rek jëf ji day day day wute day wute comme ni nga xamee ni suñu woykat yi ñëpp mbëggeel la ñuy woy woy sama yaay waaye koo ci dem bu dee jigéen la daanaka ab sëyam yàqu na nekkatu ja bu dee ko doon nobanteel ak nobante naag fukki nit ak juróom ba nag muy woy mbëggeel xam naa waroon nañ leen audit laaj leen ba xam ndax maanaam mbëggeel yi ñuy woy ñoom fu ñu ko teg ndax di woy mbëggeel ba noppi te mbëggeel moom senegal dafay perte lu néew nga gis mu jariñu fi nga gis fi ñaari ñoo xam nit maanaam ànd nañ lu néew néew fukki at wala fukki at ak juróom waaye dangay gis rek bu dee génn moom dañuy génn maanaam 300 wala 4 ans daal di sëy benn at daal di daal di ko bu dee ñi ñiy woy bu ñu woyee mbëggeel dañ leen war a laaj ba xam ndax ñoom dañoo réussir wala dañoo échec ba tax ñu koy woy ndax ñaar yooyu rek moo am waaye daal lu ci mën a xew mooy wax ji ni muy rafete war nañ bàyyi xel bu baax a baax jëfi muy mel noonu rawatina nag koor moom ni ñuy correcté di bàyyi xel yu baree bari koo ci waxal sax yenn wax yi mu ni damaa woor bu dee jigéen ñi dañuy changé seen accortement ni ñu doon soloo dañ koy bàyyi di sol beneen façon sol bu yiw bu correct te lu rafet ak lu yiw wuutewuñ dara col mën naa rafet ba noppi yiw col mën naa rafet ba noppi correct waaye am na ñoo xam ne dañuy jàpp na rek feek defoo yaramu neen daanaka rek rafle woo wala mu mel neen ni du baax bu boobaa nag yooyu yëpp dañ ci war a bàyyi xel li nga xam ni ku la wax ju ñaaw nga ne ko dama woor na ko suñu yaay waxe woon sayyidatuna Maryam suñu maam ju baax jooju ne inni nasartu lirahmani sawma falan yow ma insiyan tey daal dama nasara woor du ma wax ak kenn nga xam ni maanaam da ngay fas yéene doo wax ak kenn lu lu waxuwul lépp looy wax rek lu baax lay doon yooyu yëpp dañ ciy jànge ni ni nga xamee ni war nga téye sa làmmiñ yi nga xam ne war nga téye sa làmmiñ war nga bàyyi xel yi ngay wax yooyu buñ ci bàyyi xel rek dina am solo incha allah xam naa bu buñ ñëwaatee ñëw ci yeneen njariñ yeeg leeltu xadar yi ci aju incha allah wa wasalaamualeykum wa rahmatullah